merci monsieur le président madame la ministre ñu ngi lay nuyu bu baax di la féliciter ci sa liggéey bu rafet ñu di ci am kontante bu baax ministre nga mais man suma sër nga ñu bokk suñu njaareem ñu di la ñaanal succès bu ëpp bi nga am ca déjà liggéey bi rafet na lool di nuyu monsieur le ministre des finances et du budget di nuyu monsieur le ministre chargé des institutions madame le ministre le centre de santé de Ndindi ñaari at la am mais tey jii bokk na ci centre de santé yi gën a performant ci Sénégal liggéey ba ma ngay dox normal ñu jàppale leen nag bu baax a baax a baax defe naa bi ñu koy créer c'était pas évident keroog bi médecin bi ñëwee def aller retour ni yoon wi baaxul parce que rang-rang la woon bëgg a dem ma ne ko toogal léegi tali fekk la tali fekk na ko mu ne aw ma oto ma ne ko dinaa la jox oto aw ma carburant dinaa la jox carburant mu ne bureau bi dafa tàng ma ne ko dem leen bureau mairie ba ngeen démonter sama climatiseur indi monteel ko ñu def noonu tey jii lépp nga fa ñaari ambulance nga fa tabax nañu fa salle hospitalisation mairie bi moo ko tabax bu vingt vingt vingt six lii tabax cabine climatisée bërka démb la ko inauguré tabax nañu laboratoire lépp mairie bi moo ko def loolu de mën nañ ko wax waa koñ bi mën nañ ko wax waa dëkk bi kon noog suñu demee li ñuy ñaan tey jii madame la ministre terrain ba yaatu na lool il nous faut des infrastructures là-bas médecin bi delloo na oto bañ ko joxoon nee na am na otoom parce que tali la léegi ci logement pare na ma nga fa dëkk waaye dañu bëgg ñu wutal ko oto parce que comme mooy médecin bi di chefu centre de santé bi mu am oto jaadu na ci moom ñu bëgg yitam ñu ci ci personnel bi ñu contractualiser leen tey jii am nañu ñaari médecin benn bi étatique muy moom ak beneen boobu comité bi moo koy fay ak benn médecin stagiaire muy ñetti médecins qui sont là-bas en permanence nous avons quatre infirmiers et quatre sage femmes mais ñaar ñoo ci état yi ci des mairie bi moo leen di fay wala comité de santé bi moo leen di fay kon centre de santé boobu tey jii nga xam ni même région de Louga am na ñu fay jógee di ñëw foofu parce que diiwaan Silla mu ngi bokk ci Daaru Musti ak ñeneen deqale mu ngi bokk ci Cilmaxa di région de Thiès ñun ñëpp foofu la ñuy référé centre de santé boobu tey jii dafa war a jàll district de santé parce que dans le département de Diourbel benn district moo fa am muy district bu Diourbel et c'est là où Ndoulo aujourd'hui devrait passer aussi centre de santé comme la commune de Ngoye parce que Ngoye est la plus grande commune également du département de Diourbel loolu aussi war nañ ko def li ci des nag madame le ministre mooy santé moom defe naa ni li ci président Macky Sall def bari na kenn mësu ko cee def hôpitalu Kaffrine hôpitalu Touba hôpitalu Kédougou hôpitalu Sédhiou ci Tiwaawan tàmbali Saint-Louis war a tàmbali sant de des bru brûlés war a tàmbali polyclinique war a dem dama ne lii yàq réew bi mooy lan dafa am ñoo xam ne dañuy def seen toj-toj ñu jàpp leen ñu dem jël place u malade di feebar feebar feebarlu nañ génn clinique yi ci jox ko malade yi malade moom bopp place ñu ngi leen di gërëm di leen sax